te ñu fóot te sang réew mi nag ñu sang ko waaw dañ ko sang de fanweeri at ngi ma di ko wax ñu di ko bañ dañ ko sang dañu sang réew mi réew boo ko sangee ak xol bu set dal di noppalu boo ko sangul ak xol bu set deret tuuru maa la ko wax boo ko sangee ak xol bu set mu set wecc waaye boo ko sangul ak xol bu set deret tuuru waaw mag mu baax laa ko wax fële ca ardul quds ma ni ko waaw lu tax yonent bi ñaan yi mu def yépp ci ardul quds te li fi dee ci ay nit masul dee fenn mu ni ma ci nun la mu ni ma ci nun la nag ma sàcc wax la ko waaye ci nun la mu ni ma ci nun la xol yi xol yi la lañu sotti ci réew mi